pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire puisque bu ñu dee xool su Macky Sall bu ma juumul je pense que bii moom mooy euh, bii après 94 milliards yi bii lañ ci amaat commission d'enquête parlementaire donc moom jàpp na ne euh, li ñuy wax ci ne ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil constitutionnel ñu leen déglu moom nee na war nañ leen a mën a déglu mhm. ñoom ñi nga xam ne ñooy magistrats yi parce que loolu euh, ci prérogative ñi nga xam ne ñooy les députés de l' assemblée nationale mais lu ñu gis tey assemblée nationale Mouhamed bu ñu ci taxawee d' abord man mhm. li ma gis moom mooy euh, benn procédure de liquidation de Amadou Ba d' c'est à dire que aujourd'hui ah dañu dem assa oui dañu dem assemblée nationale boo xamante ne euh, le candidat du pouvoir Amadou Ba moom le PDS jiiñ de corrupteur parce que il y a un corrompu mais dafa am ki nga xam ne également moom mooy ger kooku ñoom bu ñu boo leen déggee ci la nga xam ne la ñu wax ci d'abord la première lettre de Karim Wade moom mooy Thierno Alassane Sall Amadou Ba moo nekk ci ginnaawam beneen lettre bi encore mu ne ki nga xamante ne moom mooy amadouba moom moo ger ñi nga xamante ne moom mooy ñaari juge yooyu nga xam ne aujourd'hui wax nañu ko mm. donc bu ñu gisee assemblée nationale déjà bu ñu jàngatee la forme d'abord moom mooy de députés de la coalition Benno Bokk Yaakaar dañuy dem soutenir ki nga xamante ne moom mooy le PDS dans l'ordre normal des choses xam nga noonu la war a demee parce que une commission d'enquête bu ñëwee assemblée nationale nit ñi dañoo war a teer seeni ay couleur de parti et que ñu dem ñu lëlmbët ñu xool mais fii Sénégal suñu fi gis une commission d'enquête parlementaire wala lenn loo xam ne pouvoir sumb na ko à l'assemblée nationale nga gis mu am adhésion de l'autre parti bu opposition wala opposition lu mu sumb mu am adhésion de l'autre muy muy le pouvoir maintenant la question boo xamante ne aujourd'hui mooy tey ci xelu askan wi mooy euh, yat bi nga xam ne moom la ñuy dóoree Amadou Ba dafa mel ne moom la waa mhm. ci li nga xam ne moom mooy accusation yi parce que la ñuy dem Assemblée nationale boo ko gisee et pourquoi nga reformuler ko ne crise institutionnelle mais mën na indi une crise institutionnelle parce que Amadou bi nga xam ne moom la ñuy maa ngi liir Madiambal Diagne le lundi passé le lundi ko bul dem waa parce que moom boo jàngatee son livre là nga xam ne ci peut-être ñi nga xamante ne boo ko liiree mën na am dañuy défendre ki nga xamante ne parce que mi ngi koy conseiller ne ko bu mu dem wuy ji la conseil constitutionnel l'union des magistrats du Sénégal également conseil au conseil constitutionnel ne ko bu mu dem wuy ji parce que ñële amuñu prérogative mais loolu euh, crise lay indi institutionnel mais Fatou avant ñu ñëw ci accusation sur la forme ma relancer la foofu est-ce que Amadou Ba ne gagnerait pas à ce que mbir mi comme que moom lañ ko tuumaal ñu setal boppam mu setal boppam. parce que quand même c'est un candidat de la majorité. mais quand on me dit ne euh, oui ah, Benno dafa bëgg a xeex Amadou Ba moi je pense que ne Amadou Ba lii sax ñu koy defal atul la ci moom parce que il veut gagner ses euh, maanaam l'élection présidentielle aujourd'hui wax am na ko ko fi wax léegi su gagner élection yi. te mbiri leerul mais lan la ñuy wax. waaw xam nga analyse nag moom. waaw xam nga doo ñëw rek na cabu du question réponse maanaam tu analyse da koy teg sur des faits. les contours oui. bien sûr dafa am loo xam ne moo ci nekk yow mii di wax xam nga ne carrément cette collision entre le PDS ak l'APR n'est pas fortuite Mohamed. Hmm. elle n'est pas fortuite. maanaam li leen lëkkale ñoom ñaar c'est parce que y a un but bien précis et derrière ce but là moom mooy le candidat de Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne mhm. déjà il a été affaibli dès le départ affaiblissement bi dès le départ mooy bi ñu koy choisir bëri na ñoo xam ne dañu dem samp seen dënd ne du ñu ànd ak moom bëri na ñu dem sur le plateau dire que ne il est amorphe bëri na ñoo xamante ne ànduñu ak moom ñu dem ci assemblée nationale boo xamante ne tey bennoo ak opposition ñoom ñoo fa timboo donc ñoom moom day dem ci élection boo xam ne déjà il est mais maintenant koo amee kooku li nga war a def mooy am plus de voix yoo xamante ne moom nga ko mën a fexe ba mu am ko ci élection bi. Mm. mais tey tey bu ñu demoon élection présidentielle lii nga gis ni un candidat qu'on accuse que ne moom dafay ger kooku est-ce que ce parti am na intention pour dem ci élection. parti boo xam ne ki mu ne mooy sama candidat moom la jiiñ guerre même si aujourd'hui parce que fii accusation bi fi ma sa am mm. sénégalais yi ku ci toog ci plateau yi xam na leer leer y a na leer na leer li leer yi moom mooy xëy na gindi seen xel ba bu ëllëgee du lëndëm seen xel un jour bu ñu génnoon ne Amadou Ba à 53 ne vont pas dire mais attends ki mm. ko wax est-ce que am nañu ci moom yaakaar parce que kii dafa far ak pouvoir wala kii dañu ko corrompre donc nit lu leer la bëgg mais on analyse d'abord sur la forme ñëw ci loolu nga xamante ne moom nga ma laaj mais ni mu demee mooy ñaari ñoo xam ne dañu lëkkaloo PDS ak APR pour Amadou Ba loolu nag ñoom seen toggum biir la mais terewul taskatu xibaar bi analyser ko xam lan moo nekk ci biir ba aujourd'hui ils cherchent tous wala cette procédure de liquidation du candidat bi nga xam ne il a été choisi dès départ mmh. mais dem ba ci biir ñu teg ko fee beneen bi mooy aujourd'hui maa ngi koy wax sànq la crise institutionnelle ma doon wax su fekkee ne tey ñi far ak Amadou Ba nee nañu Ba bul wuy ñi far ak les magistrats nee nañu UMS nee na magistrats yi bu mu wuy ji mais loolu moom mooy crise institutionnelle maanaam aujourd'hui bu ñu yegg si woon foo xamante ne mbir yi c'est avéré naka la ñuy def ak loolu nga xam ne ay tuuma la ñu teg ko ci juge yooyu loolu également ay question la yoo xam ne du mu war a dem ba ci biir pour que mu war a leer ci boppu askan wi sénégalais yi bien sûr ñu xam euh, sànq euh, Ndeye Fatou mi ngi expliqué mais li mu wax dëgg la bu fekkee ne tey ubbi nañu information judiciaire dafay anéantir l'Assemblée nationale mais est-ce que mais c'est le ministre de la justice moom moo nekk ci kawam le ministre c'est le président de la république Ibrahima Pouye mi wax fast track ku fast track assemblée nationale est-ce que kooku dinañu dem ci ubbi information judiciaire buy anéantir cette commission d'enquête parlementaire hmm. c'est sûr que cette commission d'enquête parlementaire day dem ba ba jusqu'au ba jusqu'au bout man bokkuma ci ñu jàpp ne le conseil constitutionnel est au-dessus de tout le parce que hmm. gis nga réew moo tax les réformes là il faut ñu discuter ci bu ñu paree ci li nga xam ne moom mooy cette crise bi ñu war a ñëw parce que réforme yi li tax ñu war ci discuter mooy conseil constitutionnel bu ñu nee les décisions de justice ne sont susceptibles de qu'un recours loolu je pense que ne sénégalais yi war nañ leen jox la latitude koo xamante ne gis nga benn doxalin ci conseil constitutionnel nga mën a def recours parce que il ne représente pas Dieu sur terre Mohamed ay nit lañu yoo xamante ne ay nit lañu comme ñun ni ñu nekkee ay nit c'est vrai jàng nañu am nañu parcours et am nañu respect bu baax a baax ci ñoom ñoo xamante ne aujourd'hui également war nañu leen a jox cër bi ñu moom mais warul tere ñu toll ci Sénégal foo xamante ne bu décision génnee nit ñi mën na bu fekkee ne bëgg nañu def recours ñu def recours xool lënbat ba xam dëgg gi fan la féete ak lan moo ci nekk fexe sax nu ñu nu ñu koy yeesalee ba nga xam ne les sept saa dina sax liñ naan alternance génération maanaam mu am ay ndaw yoo xamante ne dinañ nekk ci biir parce que tout à l'heure yaa ngi wax ne boo demee sax mënuñu ay cloud xamuñu euh, internet su loolu supposons mu nekkoon bu ñu amoon une génération boo xam ne maîtriser na yooyu xëy na duñu yegg ci problème de logiciel wala muy jafe-jafe boo xam ne dañu dañu ci yegg hmm. mais li nga xamante ne aujourd'hui moom moo am ci conseil constitutionnel am ci assemblée nationale moom Mouhamed c'est hmm. inédit et pour la première fois quand nga gis ko ci réew bi nga xam ne moom mooy Sénégal et même dans d'autres pays parce que en France le président taskatu xabaar yi en 2000 taskatu xabaar yi ñoom ñoo dem génnee fësal ne moom dafa def fraude fiscale mu dem démissionné loolu gis nañ ko am na ay dëkk yu ñu wër yoo xamante ne euh, dafay am cette crise institutionnelle nga xam ne dafay am jafe-jafe mais Sénégal ñun dañoo mus a dund foo xam ne dañuy nekk à 20 jours wala boog à 25 jours de la présidentielle mhm. ñuy ubbi une commission d' enquête parlementaire euh, parti APR far ak li nga xam ne moom mooy PDS euh, ñëw indi li nga xamante ne aujourd'hui moom lañu moom la ñu gis <laughs> waa régie waa régie seen seen match seen match naar yi mi ngi génn fii de alors. as la as la. Euh, sa lecture par rapport ak ce qui se passe. Ah. waaw euh, ñu commencé ci conseil constitutionnel. Mhm. su fekkee ni. CC waaw su fekkee ni si ne nii coow li coow li ñoom ñoo ko waral. Mhm. ak lu mën a am aussi il faut ñu taxaw tuuti ci ñoom. Mhm. ndax boo xoolee la manière bi nga xam ne si ne ñoom lañ noonu lañ leen nommé. c'était de manière très précipitée. parce que c'était suite à un événement malheureux boo xam ne amoon na fi ci ñi leen précédé. donc moment bi nga xam ne si ñi ngi leen di tànn di leen di leen nommer. donc dafa gaaw peut-être que le président de la République n'a pas pris le temps étudier dëggantaan les personnes yi nga xam ne ñoom lañ fa teg tey egsi nañ foo xam si ne ni ñoom ci seen wàllu bopp bi ñuy teg les sages dañu foogoon ni àgg nañ ci aasu sagesse boo xam ne si dina tax dootuñu bëgg dara tolloon nañ ci foo xam ne si benn retraite spirituelle dafay war a am ci ñoom parce que aussi Sénégal dañu am suñu ay réalité bu ñu demee ba teg leen foofu dañu jàpp ne fi mu toll ni ci àdduna toll nañ ci war koo mën a dëddu toll nañ ci war a mën a wax te yàlla rek tax toll nañ ci foo xam ne décision bu ñuy jël dinañ ko jël ndax quitte ak seen conscience mais fexe ba nga xam ne bu ñu tranché benn xale du leen dab naan leen li ngeen du yoon ñu nekk ci tolluwaay foo xam ne si tey jii ay père lañ ay kilifa lañ ci ñi nga xam ne si ne ni moom moo di magistrature bi. Mhm. ndax boo tollee fenn fi ñu doog la jël. jiital la ne la réew day am ay bànqaas yoo xam ne ay mag dañ ciy jiitu ñu jiital la ni leen toute décision bu ngeen jël c'est à appliquer te duñ ci werante duñ ci def dara donc tey yaakaar dafa tas. Mhm. et leur honorabilité leur dignité leur image daf ciy des. Mhm. donc c'est à eux maintenant de donner bon exemple parce que dëddu nañ àdduna ñu foogoon ko ci ñoom. foogoon nañu doyal nañ ci àdduna tey ñu wax lu dul dëgg ci ñoom. Ah, mais yow loolu lan lan lan moo ko dindi. parce que non non xaar foofu laa jëm. Mhm. déjà yow dindi nga loolu. te foofu non dindeeguma ko damay wax ñoom ci lan lañ sukkandiku. ci lan lañ leen teg ak ci ñun lan lañ jàpp ne moom moo leen fa war a bàyyi. Mhm. donc ñu demee ba ni ñett ñuy dañ leen di sellal teg leen fa toute décision bu nuy war a jël daf buñ ko mënta am à l'unanimité mu am au moins à quatre-vingts